dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV kii di Ousmane Tounkara yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci taxawaay kuy di Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam ne ne moom mooy yoroon salon bi di Sweet Beauté. si li ni mel lu si kii di Ousmane Tounkara moom mooy que ne si réewu Sénégal nu mu amee ay jigéen ñu bon ñu mel ni que Gabriel Kane Adji Sarr Françoise Hélène Guèye Ndeye Fatou Ndiaye Fouta yi ak ñu mel noonee noonee tamit la ay jigéen ñu baax ñu mel ni ko Ndeye Fatou Ndiaye mi nga xam ne ne moom moo yoroon salon bu Sweet Beauté nee kookee femme bu exemplaire la ci biir société sénégalaise ndax ne kookee dara feesul ay bëtam ndax bu ko xaalis taxoon a jóg ginnaaw bañ ko proposé quarante millions ci coow li nga xam dafa jaaroon ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr kon foofee daal dinay jël xaalis bi daal di dugal kii di président Ousmane Sonko ci turu boo xam ne ne kenn dootu ko fa mën a génnee waaye ne kookee lu mu ànd ak dignité ak ngor moom moo tax coono bu teg woon lépp ci moom moo ngi commencé di wàcceeku ndànk-ndànk ndax ne liñ ko àtte woon ci coow li nga xam dafa jaaroon ci diggante kii di président Ousmane Sonko kii di Adji Sarr te si li ni mel ñi tëjoon ko ñaari atu di ko toppee li ñu dippee incitation à la débauche ne loolee yëpp tey justice daal dina ko koy wàcceel. ndax ne juge bi ñu dippee Ousmane Racine Thior ginnaaw ba mu réinscrire kii di président Ousmane Sonko ci fichier électoral bi te si li ni mel mu daal di dàq état de contumace bu daloon ci kawam. loolee daal dinay daxaale daan yëpp yu bàyyee ko woon ci àtte bu jaar ci diggante kii di président Ousmane Sonko ak kii di Adji sa donc ne lepp luñu jëlone de tout tuuma di koy ci ndodd di justice dal dina koy sétalat bam procès Bobé jaaroon ci président Ousmane Sonko ak ki di Adji Sarr ñu dal di koy recommencer à zéro dal di koy wat ne que procès Bobé dinañ xam dëgg bi fu mu fété ndax Adji Sarr dina obligé dal Sénégalais mbir nu démé bam ci Sénégalais ñëpp di koy dégg Ousmane Tounkara daal di yëkkati daal di koy jëmale ci kii di Ndeye Khady Ndiaye mu moom woon salon Sweet Beauté